gars yi carte gi tas na euh, Arda Güler tas na match bi nga xam ne Turquie doon na ko football ab équipe am gars gone gi est-ce que du jinne euh, du jommal gars yi démb ci digg ba bëccëg gi fële euh, ca li nga xam ne mooy match bi Turquie doon football danañ ci dikk ci xëtu yaatoo yaatu waaye duñu fàtte Edouard Camavinga ci waa minu ci bu tooy Rudiger ñoom ñett ñi nga xam ne li la di match internationaux yi jeex na delluwaat kër gu mag fële ca merengue gars yi information yi ci kàddu gi seen bokk seen xarit Aladji Malick TV fàtte naal euh, yéen a ngi ci endroit bu baax yi abonnement yi bu leen ci des ginnaaw gars yi bamas ñu dem. gars yi Turquie Islande la doon football xam ngeen ni Islande pays de football la waaye nag ndikit yow li ma leen doon wax ci tef bi nga xam ne Turquie mi ngi koy bàyyi xel Arda Güler la tudd gars yi match baa ngoogu ngeen gis ni ñeenti bal ak ci ñaar la mujjee ci li nga xam ne mooy tableau affichage bi score final. loole nag bokk na ci li nga xam ne entraîneur turki bàyyi woon na ko xel bu baax a baax ndax match bi demoon nan ba li nga xam ne moo nekk ñaar ak ñaar ci li nga xam ne daanaka mooy match bu am euh, solo boo xam ne gone yi bi ñuy football lu toll ci juróom-ñett fukki minutes ak ñett boobee match bi daanaka mi ngi ci témboo euh, gone turki yi nag jaaxle woon nan bu baax a baax waaye nag ndeke téyoo Arda Güler mi ñu làqoon ci laf wi ndeke moo la parti li nga xam ne mooy match boobee gis nan juróom-ñetti fukki minit ak juróom-ñetti séngam juróomi ki naaw bi euh, ci la ñëw rajaxe kaas gis ngeen ko mu ngi noonu moom a Güler euh, ci taxawaay bu am solo bi gars yi bala ma continuer information yi ma ñaan leen nag lii bin sport nag fële ca espérance dafa mel ni nag télévision ba ci daanu la jëm ndax droit yi nga xam ne mi ngi nekkoon ci alal ju mu waroon a fay eh, ci euro bi ndekete yoo ba tey ji teg na euro bi ba mu jeex te fay googee matul baneen bi ci des mooy club yu baree bari yi nekk fële ca France nee nañu ñoom ñii di bin sport bu ñuy direct ay match buñ fa teg seen tàng sans bisel orange may président ba sax am na ci preuve yu tax lu tax loolee mooy xaalis bi nga xam ne ay droit la yoo xam ne dañ ko war a mën a fay yénd ci club bi xaalis boobee bin sport werseegu ko moo tax yaakaar naa ni Lyon buy football maanaam porte nañ plainte fële nga xam ne moo nekk fédération française bu wax leen ne nag loolee ko jëmmal wala ñoom duñ fa mën a teg tànk am na yeneen club yoo xam ne sax riposte nan lànk ne maanaam bin sport dafa dugg ndax xam naa ne lii lépp ñi ko waral mooy ligue football bu France tax jàpp naa ne jamono ko Canal Plus di yor doon ko doxal bu baax a baax Canal Plus booba championnat France ci wàllu droit tegu woon na ci yoon tey fay gaa yàlla rek te naar yi nag xaalis bi doon xëpp boobee yaakaar naa ne xaalis ba fi mu toll nii nangootuñ ko xëpp carton rouge ci match Belgique ak équipe bi nga xam ni moo nekk euh, lii di France match ba nag bari woon na ay jafe-jafe ndax rouge nañ fa lii di euh, euh, Tchouaméni Thiouboutin am na ñaari rouge yoo xam ne sax am na ci côté équipe nationale France waaye teewul gone France fu nu fekk Belgique dafa mel ni dañu ko nenn dañu koy tëcc ba mu nooy loolee bi nga xam moom mii di Tchouaméni euh, Thioutoye moo nekkoon tête de liste rek nekkoon yaakaar équipe bi waaye nag fi mu toll carte gi tasaaroo na ci moom match trêve international yi terminé na Arda Güler mën naa ñibbisiwaat fële ca gu mag moom ginnaaw bu mu defee prestation boo xam ne bu ama am solo la ak équipe am bii euh, di euh, Turquie keneen ko def prestation boo xam ne nag daa mujje carton rouge di Tchouaméni wala Aurélien Tchouaméni moom it gis ngeen ko bu baax a baax ak ki li nga xam ni moo nekk Antonio Rudiger moom it def prestation yoo xam ni yu baax la ak équipe bii di Allemagne moom it bokk na ci ñi nga xam ni euh, daananu del si euh, tey jii fële xam ne mooy kër gu mag ndax mbir ma jeex na la ca des mooy delluwaat ci championnat bi weekend ñëw nar a nekk weekend boo xam ne bu am solo la ci ñoom nekk na weekend boo xam ni euh, bu décisif la ci équipe ku ci la sa dëgg-dëgg yéen ci info matinal leen indi sax vidéo entraînement bi day démb waaye balaa loolee lépp Sénégal Malawi loolee dana nekk match boo xam ne bu am solo la waaye compo bi nu naataable rek xam nga ñun moom amul benn cool-cool dañuy ñëw waxtaan suñ biir rek compo bi ma xalaat ne yaakaar naa ne gaañi duñ ko war a mën a bañ ma ànd ceeg sama euh, naataango yi nga xam ni ñoo nekk ci wiw sport fële ca Ndakaaru maanaam ñaxate nag moo nekk ci axe central bi ak euh, Sini Dieng euh, ci kan yi bu ngeen ci àndul te lu ngeen mëntu ànd tamit teg leen ko ci taabal ji wax ko maanaam Koulibaly nag moo nekk ba tey ci axe bi mm, ak kile di Moussa Niakhaté Habib Diarra voilà mu nekk ci li nga xam ne mooy côté ndijoor bi maanaam latéral droite ak Alaaji Malick Diouf loolu mooy défenseur yi nga xam ni jàpp na ni défenseur yooyu ah, ku leen opéré di nga gis dara bu dee digg militaire bi nag Lamine Camara comme comme dap équipe bi gagné kenn du ko sensé digg militaire bi Pape Gueye Lamine Camara Ismaïla Sarr Iso maanaam mu ne ca kaw tuuti ak ki li nga xam ne mooy Sadio maane Jackson daal di leen di séq léegi ki nga xam ne mooy Boulaye Dia moom nag fi toon ni yaakaar naa ni moom euh, numéro 10 lay football numéro 10 lay football wala bokk maanaam mu dem ci côté bi ànd ak Ismaïla Sarr ak Jackson bu ko defee Sadio Mané euh, football numéro 10 gars yi gënaar yaa ngi sab yéen a ngi ci info matinal bokk na ci li nga xam ne xalaat naa ko leneen lu ngeen xalaat nag ndax xam ngaa ni seen xalaat maanaam yaakaar naa mooy gën sama xalaat boo amul sens euh, ñu dikk ko waxtaane ko gars yi ñu diglu entraînement bi gaynde yi